chers amis de la Médina TV ñu ngi leen di nuyu mbokk yi amaan mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen comme niñ koy defee saa su nekk rek dañu ñëw seet si la grande voyante euh, soxna Yaay Fall dañ koy bàyyi mu nuyoo ak internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan su ko defee ñëweel suñu waxtaan ay ci ñu ngi lay nuyu soxna Yaay Fall am mbégte ñëw seet si la tey maa ngi lay fay di nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme ma koy waxee rek ñëpp ziar ñëpp soxna Yaay Fall ñu ñëw tey seet si la euh, gis euh, sarax boo xamante ne yaa ngi koy génnee tey euh, pour dal ci réew mi mën nga ci mën nga ñu ci ñëwaatal ci nu gën a yaatu. waaw mën naa ci ñëwaat parce que nit moom looy def lu nekk day nekk sa yëg-yëg ak bëgg-bëgg sarax bi xaaruma ci afi kenn woowuma ci kenn ñaanuma ci kenn waxuma ci kenn maa toog xool lu jaadu ci réew mi. ma di ko def ndax boo nekkee ci réew mi nga ne doomu réew mi nga réew bi di xeex di tàq guddi di tàq ba bëccëg nga ne yow danga am xam-xam ko doo croiser les bras ay loxo di xool nga war a jug si li nga war a def nga def ko man daan naa def bu xew-xew bi nare am ba yëkkat samay sarax ma saraxe ko mais tey dama ko gën a fësal na li tax ma gën ko fësal mooy ñi xam ne yàlla may na leen tuuti xam-xam ñuy gëstu mbiri di xam tey Sénégal lan moo war a saraxe Sénégal tey Ousmane Sonko lan lan war a saraxe ba mu am jàmm parce que Ousmane Sonko jàmmam mooy suñu jàmm imagine toi bu nit ñi ne laal Sonko benn xel dootul dal benn fit dootul toog kon nga xam ne nit kooku bu laal bul jege la tudd kooku mooy Sonko ba moo tax tey ma xool ay mbiram gëstu ko ci guddi ñu wan ma si mbiri kéemtaan laaj ma ci sarax bu takku démb dama génne 500000 ma def live tiktok ma ne maa génne 500000 man ma commencé gun sama xaalis nag maa ko liggéey kenn mayu ma ko may kat sama 500 fas yéene jënd ay sarax saa yu ma xëy jënd ay sarax tey laay soog a commencé nii mais dese na ma suba ak ginnaaw suba du ma tàllal sama loxo di woo nit mais lu baax ñëpp ko bëgg te lii may def yàllaa tax ma koy def ne ah mais dara taxul ma koy def tey ku yëkkati alalam def ko ci man dama la ko ciy defal te fësal ko nag. dama bëgg àdduna li am importance ñu ci yàq xaalis li amul importance ñu di ko bàyyi parce que tey jàmmi réew mi ñun ñëpp la jàmmal man awma place ci kaw tali bi sama kër la am fi laay liggéey mais tey yow am nga place ci kër wala man sama mbokk am na place wala sama am di jàmm ñoo ñëpp dama leen di sauver waale parce que bu dëkk bi tàkkee ñëpp la tàkkal bu fayee ñëpp la fayal te Sëñ Tuubaa na woon jàmm moo gën fii ñu nekk ak fon jëm jàmm mooy jàmm yàlla gisuñu lu dàq jàmm si àdduna te man yaay Fall lu ma gëstu xool ko xam ne su ma ko defee réew mi dina am jàmm barki Serigne Touba jaral na ma miiraan sama bopp def ko ci mais dama koy def incha allah. yaay Fall am na solo mu mel ne sa biir wax yaa ngi ne da nga gis ay kéemtaan ci ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko mën nga si mën nga ñu ci ñëwaatal rek ci nu gën a yaatoo tey jii lan nga gis ci Ousmane Sonko. li ma gis ci moom bari baatin ak parce que nekk ci say loxo yi say noonu dafa xaw a doy waar chaque jour dañ lay fexeel ñu ngi lay jiimal ci zaahir ak si baatin te Sonko ay xale rek ñoo ko topp te xale ndaw yi xeex lañu mën sànnante ay xeer mais mënuñu dara yaa ngi comprendre am na mag ñu bëgg Sonko nag torop am na si ñoo xam ne dañoo ragal a seen bopp am na ñoo xam ne ñu ngi fësal seen bopp mais ku si ne méthode bi nga mënee pour jàppale ko si si loolu ngay defee ndax xam nga tuuma dafa diis benn doomu aadama rek ñu jàpp ko lu mat ay trois ans xawma ma quatre ans chaque jour nga xëcc nit ki duga fi men yor ko sa ginaar xanaa ginaar sax boo ko jàppee di ko tàng-tàngee bu yàggee mun na dee xam nga loolu moo rafetul si loo xam ne amul solo man loolu loolu laa kontu man moo tax ma jug tey man yàgg naa nekk si internet bi yàgg naa wax te kenn mësul dégg yaay faal fii la far wala kii lay jàppale lool nit mësu koo gis mais man maa jël samay engagement bopp jàppale Sonko te yàlla tax li tax ma koy jàppale mooy xeexam bi dafa néew ñu ko ci jàppale ci côté ñaan ak sarax gisagoo fii benn maara boo seete ji mu génnee saraxam na la Sonko laa ko defal gisagoo ko mais ma jël maara bi nga xamante ni man xale yi dañ ma bëgg jox ma bopp te xale yi luñ bëgg man loolu laa leen di fekk ci bëgg la leen xëy na yaay faal mën nañ ko xeeb ci zaahir nii mais baatin ba si biir kum jëflanteel di nga xam ne yëfu mag lan ma ràng bàkki suñ Tuubaa kafuma sax waaw ñu gis la musuñu laa dégg ci li nga xamante ne moom mooy politique lan moo waral soobu bi nga xamante ne kon soobu nga ko ci mbiru Ousmane Sonko. li tax ma soobu ko mooy comme li ma à chaque fois rek dama bëgg ñu gën a xam ñu gën a xam kan mooy Yaay Fall moo tax ma engagé wu sam bopp musuma jug ne kii laa fara wala lii laay def mais mbiru Ousmane Sonko maa ci soobu démb ba tey. liggéey ci génne ci ay sarax génne sama mille dugal naa ko TikTok ñëpp a ko gis ma ne maa koy saraxe Sonko am ndam te bundu xataal bi ñu koy def jaay doole bi ñu koy def loolu day dañ parla la yaay fal moo koy imposer ku ma bëgg a fal dama lay fal ku ma bëgg a fol dama lay fol te ci xola sarax yi ma def tey wane ko ci mbiri Sonko si lañuy xamee vrai yaay faal barki Seydina Mohamed Sonko day am jàmm far fos day bokk far fos te yaay faal moo koy def guerre bi sama guerre maa koy guerre xale yi dem leen ngeen toog maa jël sama engagement ferme kenn joxuma cent franc ma def lépp te Sonko da ngay am ndam incha allah bu neexee yàlla suñu borom yaay fal la grande vaillante moo soobu ci combat bi musuma si bokk maa ngi ci soog a bokk tey la ñuy xam nag ñi mën ak ñi mënantu gaynde gaa ngi nii toog damay dem ba jeex damay dem ba ñeer te ndam rek du ma ànd ak kuy am defet barki Seydina Muhammad 300 ferme musuma engagé tey laay soog a engagé bi nari atte la Sonko ndam am na solo euh, ñu gis Ousmane Sonko kon tey di ñuy waajal délibération bi ci procès bi nga xamante ne amoon na ak CEDEAO lan nga ñu ci lan lañ ci mën a xaarandi rek ci avenir am waa ay mbiram moom chaque jour surprise lay doon chaque jour waaye man yaay faal lu may def mooy di njëkkante kurus ki ak ñaani am na sarax yu ma def te fajar mais yooyu waneewu ma ko ci caméra te suba nee naa la damay dolliwaat nii nii damay dolliwaat lu mënti xew nañ ci ay njabootam liñ koy toppee yépp ñu bàyyi ko man loolu laay xeex instant bii nii dama gën a xeex loolu dañ ko may jàmmam parce que jàmm si la lépp xaj bala ngaa def leneen faaw nga am liberté sa bopp man damay xeex loolu ba pare aja am na solo yaay Fall dañuy tënk loolu rek euh, su ko defee ñu wëyal waxtaan bi euh, comme niñ koy waxee saa su nekk wàllum seet moom yaakaar naa ne kenn dootu la ci présenté sénégalais yi miin nañ la waaye àdduna wërngal këpp waa dëgg la li may def dama koo mën dama koo maîtriser dama koo xam xale laa mais yàlla suñ borom moo ma may lim ma may dama koy nangu nag dëggal sama bopp liggéey kenn mënumaa tiital kenn mënumaa xoqatal ndax gaynde laa ku fekk sama terrain may liggéey li nga xam ne gaynde nga jàmmaarloo élection 2024 mystique dëgg moo fay dem mais lu ay carte kase ak waxi kase loolu taxu faa dem gàllaaj gu wóor gu leer di nga xeeb benn affaire nit ki nga xeeb ko nii dem romb ko fa dem di seeti leneen te il faut nga dëppaat ñëw si yaafa lu leer laa lay wax barki Seydina Mohamed léegi laa coupé peg benn kilifa am koo xam ne ku yàlla teral la du ma tudd turam fii nag mais ñëwoon na ñaan lu ma retour waat demaat ci beneen sëriñ di ko ñaanloo yaakaar ne kooku mooy faj ay aajoom kooku nag retourné waatal sa yaay faal ma nga bàyyi ginnaaw mu ñaanal la bu la ñaanalu say mbir di tàkk politique c'est la barki Seydina Mohamed man tey ñaanaloon naa ko doyuma ko mu dem si keneen waaye kooku dana ko retourné waatal fa nga dellu fa nga demoon nga delluwaat fa kooko ñaanalaat wala li nga ut doo ko am barki alxuraan karim waaw dama bëgg nit ña xam ñi mën ak ñiy làmbaatu ma làmbaatu ma li ma fi ma toog dafa dëgër te sarax ma def nii dama koy gën a def may insister si wax ji Sonko ak Sénégal am jàmm ñaan ñi moom ma tax may def saraxee ndaxte jàmmi Sonko mooy jàmmi Sénégal loolu dama ko insister di ko wax ku ma si fekk si ñu liggéeyal yàlla ndaxte ku def jàmm sem réew moom yàlla moo lay fayal boppam ndax man yaay faat su ma neexoon continuer na may def xëy di seet di sama xaar toog jàpp sama ñàmbur du ma am benn wax du ma am benn coow ndaxte boo awee fii bëgg a def li di nga dégg ni critique la di nga dégg ñi nangu di nga dégg ñi bañ di nga lu ne tax nga koy def mais man wootewu ma ndimbal sàquma saraxuma kenn man maa yëkkati sama xaalis yëkkati sama sarax joxe waaye ku yëkkati sa yëf def ko ca man tamit dama la ko ciy defal ba pare fësal ko man dama directe nii la ma yàlla bindee ay ca am na solo soxna yaay faal ba tey rek ñu des si wàll yu nga xamante ne danga ci yëngu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy cat euh, ni mu nga xamante ne sonal na euh, doomu aadama yi tey jii ki nga xamante ne peut-être cat jàpp na ko lan la mën a xaar si yow lu mën a xaar si man mooy ay sangat ak i ñaan ak ay sarax gis nga sarax moo gën a garaaw ñaan te nit ñi xamuñu loolu mais nit xam saraxam moo jafe mais loolu da ngay seet kat dëgg dëgg mu wan la ko mais sëriñu Sénégal jàpp nañ ñoom ku seetal na la ñett na bu laa cat ak laam mañ bët loolu du affaire bi affaire bi da ngay dugg si vie privée nit nga wax ko lii nga dund lii nga def kii nga àndal lii nga jël loolu mooy seet te looloo raar te loolu la yaay faal di def ak Serigne Sall man damaa mën pire yow mii sa boo xefee ma seetal la en direct si la lii bi nii ñëpp di la dégg ma wax la li nga def tey avant nga fi ñëw waaw <laughs> ayca xanaa du looloo leer ba tey soxna yaay faal comme ni nga ko waxee tey nit ki pour xam li nekk si il faut ñu seetal la ba pare xam si xam li nga xamante ne moo nekk ci yow door koo mën a faj waaye boo mustoo ci cat ak tamit jamono tool na foo xam ne ñëpp yittewoo li nga xam ne mooy kaaraange hmm. waaw kaaraange li ko sabab mooy cat maanaam bu la boo musuloo si cat rek ba cat muslu la daanaka am nga kaaraange làmmiñ moo gën a garaaw sëriñ te mooy li xam ne mooy yàqal ñu di de macha allah mais après dafa dem ba si biir cat dugg ko loolu mooy cat nga nekk si lu baax ba yaa gàllankoor dal la ci rek loolu mooy cat. ndax yow da ngay saafara cat maanaam tey man su ma cat jàppoon ma ñëw si yow mën nga ma koo dindi. mun naa la see ñaanal génneel la say sara waaw bam daj ma mun ma la ko assuré ndax mën ngaa génnaa def lu la cat duggeewaat hmm. waaw. am na solo ba tey rek ah, ñu continuer tey eh, ki nga xamante ne mi ngi bitim réew wala mu nekk Sénégal bëgg a tukki soxna Yaay Fall bëgg am papier bu gaaw a gaaw ku ne xam na ne demande visa yi fii metti na waral xale yaa ngi jël gaal gi dee bi bëri na et tout ah, tey ki nga xamante ne bëgg na papier eh, tey ji soxla ñaan ah, nan la mën a def waaw da ñëw si Yaay Fall soo ko gëmee nga ñëw boo ko gëmul bu la egsi a laa ku ma gëm ñëwal ku ma gëmul bu la egsi waaw mën a wax mooy yàlla lim ñu may bari na fank dee rek lan mënul waaye lu loo xalaat ne nit da koy feebar wala muy gàllankoor si doomu aadama boo ñëwee dañ la koy saafara pour mu tënk man sama lépp dama koy tënk man waaw. nit di ko dund ci yaramam. su ñëwee seet si la muy nga feebar boo feebaroon fii tëdd fii ma faj la fi bala nga fay jóge yaa xam nga bëgg la ne yee soxna si nañ xam kii yaay faal yaay faal wax na waxati te lépp lu ma wax nit boo ko weddee di nga koy gis nan arrêté samay video nee naa yi nekk si YouTube bi ñu daw ñu xool yaay faal lan la waxoon avant ak après. nee naa leen si réew mi na des tuuti lu waaye wax boole si yaay faal wala dañuy xaar yaay faal ñoo ñu soog a wax loolu force la loolu yàllaa ko def defuma ko loolu yàlla moo ko def li nekk si man yàlla def ko si man dañ koy nangu far force nit dama koy seetaan télé bi tey jii su ma la bëggoon a fay dangay toog fi nga toog ma fay la su ma la bëggee taal ma taal la te su ma gisee doomu aadama mu am gàllankoor te xaw ma xaw ma ko damay yëkkati sarax ma saraxeel ko Sadio Mané bi am bi mu amee problème mu tànk nekk Europe damay yëkkati samay sarax ma saraxel ko ma ne mën naa faj Sadio ku nekk di wax na yaay Fall lu tax nga ne mën naa faj saajo maane ma ko parce que ay mbiram gàllaaj da cee laxasu mën naa kaa faj bu mu tax ku nekk di wax mais dama yëkkat sama sarax ma sarax keneen ak keneen su ma ko gisee ay coow wala ay musiba mu mën a yëkkat sama sarax xel ko dama koy def parce que fii ku jiitu moo sonn ku weddi laajal Viviane Ndour Viviane mi ngi nii tey jii nii yàlla mi ngi koy may ay trophée gaa yaa ngi kaas di mer di wax lu nekk moom nit ñaa ngi wax moo ngi liggéey mm-hmm. mi ngi am ay ndamam nit bu ko yàlla mayee bu ko ko soxore da nga koy naan félicitation macha allah parce que sénégalais ñun ay sénégalais lañ kon ndam ne ñun la ko indil mais sénégalais moo bëgg benn affaire lañ bëgg kuy def lu bon ñu lay suivre kuy wax lu bon ñu lay suivre waaye kuy am jàmm ak ay ndam du la sax compter nañ bàyyi loolu te nangul jàmbaari waaw loolu laa bëgg ñu wax ko am na solo soxna Yaay Fall waaye duñ jeexal rek te waxuñu si li nga xamante ne moom mooy combat bi nga xamante ne moom moo dox ci diggante Siteu ak Lac de Guiers mu Lac de Guiers plutôt muy combat boo xam ne bëri na polémique. waaw bëri nay wax sëriñ si bëree nga naan la de Guiers mënu mënu kii mënu daan Siteu mënu koo daan dañoo neex rek làmb nee na làmbatu la te reenu ñàmbi la kenn xamul fu muy demee nañuy bàyyi di insister ci nit di jox fa bari nit saa yi suñ joxee nit fa bëri yàlla da leen di natt kooku la ñuy daan nañuy dañuy bàyyi yàlla indi surprise am lu ma chaque jour ñun kuy daan ak kañuy daan yëpp dañ koy xam suñ ko bëgg dañ koy wax mais suñ ko bëgg ta wax duñ ko wax damay ñaan euh, euh, Siteu Baye Fall la man boo ma xoolee sax xam ne bu ma laaj fu ma bokk waaka Cheikh Rafa Siteu Seye bu la bëgg man Siteu rek laa bëgg yàlla na ko yàlla may ndam waaw. Ah. tey jii dooñu ñu doo ñu wax tey booñu ndam li fan la féete. Siteu yàlla na ko yàlla may ndam loo ti Siteu yàlla na ko yàlla may ndam. man da dangaa bëgg dangaa bëgg. yàlla may ndam ah ndam lool bëgg tamit taxul yàlla dogal lool de. wala tarkindaa eh, la dëggee da daa bu buy bëree toog benn place mel ni kun gome wala Siteu jàppee dina la jaxase ba nga xam ne lépp dëgg la kooku bay Fall la Baye Fall moom xam nga ne amul seraan moom day bett rek waaw. <laughs> ayca yaay Fall ñu bàyyi la tey jii fekkee am nga loo xamante ne bëgg nga ko wax sa dernier mot tàggatoo. waaye lu may sama dernier moom mooy Sénégal yàlla na am jàmm nañuy xool ña xam dara ñu leen di lijjanti te bàyyi ñu mënul dara ñu leen di coow di wax wax ju bëri wax ju bëri amul njariñ neneen baatin ak batineen ñu benn ñun yàlla baatin lañu may lu leer laa lay wax ku dugg suñu garde wala nga dox ci suñu affaire di nga xam ne lépp dëgg la barki Seydina Muhammad di ñaanal Siteu ak Lac de Guiers yàlla na leen yàlla may jàmm ak tawféex ban tal combat bi ci jàmm yàlla defal leen jàmm parce que ay doomu Sénégal lañu ku daan fii la ndam li yam nest pas sport la ka fooree bum jar nit ñi di ko yóbbu fenn fi walla ñu koy waxee neen loolu day ñaaw affaire supporter la rek xam nga dañ ko rafetal daal te bañ ko ñaawal bañu indi ay violence loolu yaa ngi comprendre su ko defee ñoom ñaar yàlla may leen jàmm ban egg sa di combat ba si jàmm ak salaam ndam ne nag yeneen naa ko bàyyi faal bi yàlla na ko yàlla may ndam man damay insister di ko wax bis topp mooy saa su ma xëyee sarax bu ma gis ci réew mi su ma hmm. yoree sama wërsëg te ma war koo mën a def dama koy def incha allah si kàttanu yàlla ku ma ci fekk nag dama koy def te fësal ko ku ne gis na événement yi ma def fii mu paase fi lépp maa ko defee sama boor yaa ngi comprendre musuma taxaw ma ne nit may ma cent francs mais li may wax sax am naa fulla bu tal ni ku ma defal dara muy génn ma wax ko man duma ñooñu nga xam ne dañuy dañ leen di defal li naa ragal féete day xañ a wërsëg defal la lu baax ba pare nga reculer toog bañ a wax loolu gor du ko def nee na ku la defal lu baax soo ko waxu si limal ay noonam dala si boole man ku ma defal lu baax dama koy fesal nuy naa ñëpp ziyaar ñëpp di wax ne ñëpp kontaan naa yaay faal ñu koy jàppale ñëpp xam nañ ko te yàlla tax ñi nga xam ne buñ sañoon dina dem fu ne egg fu ne ñëpp xam naa ko ñu sama xol yàlla na leen yàlla defal jàmm parce que su ma limee mun naa juum te juum laay bañ di wax sama yaay dama yónni yàqamti ma ak Serigne Saliou di ko ñaanal gudd fan ak wér gu ak sam papa wax ne ñoo ma tax di rayante te duma masa bàyyi soxlaw ma dara ci ay alal soxlaw may milliards soxlaw ma dara sama yaay sam papa nañ kontaan rek buñ kontaanee awma lu may tiit wala lu may ragal parce que dañ ma xasa ñaanal neneen ma dangay jéng mais doo daanu barki Sëñ Tuubaa kon wax gaa yi ñu ngi lay jaajëfal mbokk yi di wax ne numéro bi kon day jàll à bas de pour yéen ñi nga xam ne yéen a yittewoo ay service am bu ngeen ko rek incha allah lépp loo xamante ne jafe-jafe la suñu borom dina ko saafara di là wooy leen di topp Medina euh, TV mhm. ñëw dem si daara ji mooy daara ji nekk fii nii fa la ñuy fas yéene yóbbu sarax yi ànd ak gaay yi incha allah bu neexee yàlla waaw di nuyu sama cameraman bu ñaawul bi sëñ Saalu Masamba ak yow tamit yàlla la yàlla may ayca amin mi ngi noonu mbokk yi kon wéy leen di topp Medina TV ci ay programme bu leen fàtte di abonné partager like d'ici là nekk leen ci jaamu jaa ngeen jëf